comme euh, niñ ko annoncé ci suba. tey dañu bëgg ñëw defar ay smoothie yoo xamante ne euh, pour euh, rotaat énergie rotaat vitamine yi nga xamante ni suñu yaram moom la soxla ku ne xam na ni suñu bëggee ay minéraux bëgg li nga xam ne moom mooy ay calcium bëgg li nga xam ne mooy ay fer root énergie il faut ñu wut ko ci fruits ak ci légumes yi nga xamante ni ñoom lañ fi am ba tax na tey jaayante ci xaal xaal bi nga xamante ne euh, gis nañ ko ci marché bi euh, am nañ fi papaay nga xam ni moom euh, bariwul woon noonu sax le kilo à mille francs mais mu ngi dellu si ndànk-ndànk am nañ fi ananas am fi orange am fi banaan am fi mangue ak lan ak pomme waaw ak pomme bi nga xamante ni yow yaay jël sa sa ay smoothie defar ko maanaam jaxase ko nu mu la neexee bu la neexee nga jël fruits yi nga xamante ni c'est riche en carotène mélangé ko lu ci mel ni papaye bi lu ci mel ni mango bi lu ci mel ni euh, ak ban orange bi mélangé ko am benn euh, mélange bu neex boo xamante ni da ngay root euh, li nga xam ne moom mooy énergie bi xam nga soo jëlee euh, genre fruit yu mel ni euh, jël benn saladier jël mango bi saam ko ci jël papaye bi teg ko ci jël anana bi pour nga mën ko lekk dafay jël temps parce que fa ngay nekk di sàqami bëgg xamp ci banana bi bëgg xamp ci mango bi dafay xaw a metti mais bon soo jëlee mixeur béko yi nga xamante ne moom la ñu am et puis jaxas di jaxase ci yëpp dangay am loo xamante ni c'est très facile nga nga naan ko c'est très mu dugg ci sa ci sa yaram et puis mën ko assimiler facilement parce que xam nga ni euh, su fekkee sàqami woo nga jël euh, élément liquide yi naan ko da ngay gën a faciliter sa sa sa estomac pour mu mën a assimiler euh, genre lekk yooyu et puis bañ nga mën am apport yi nga xamante ni moom la sa yaram soxla donc li nga xam ne moom la ñuy jëkk defar avec les beurre bocage nga xamante ne ñoom chaque suba dañuy indi benn recette bu bees beurre bocage yi nga xamante ne kenn du tàyyi di ko présenté nee naa la bu duggul ci recette bi jël nga sa pain daal di ko ciy tartiner ndekki ba suur parce avantage bi nga xamante ne moom la ñu am nga jël sa ay toast wala nga jël sa pain au lait daal ciy def sa beurre bocage am ndekki bu neex euh, boole ci meew yi nga xamante ne moom mooy euh, bokk ci gàmmu gaamu Bridel muy lait en poudre bi ak lait euh, liquide bi nga xam ne moom moo moo féetee na la sama ginnaaw nga xam ne ñoom dañ ciy ñëw. am na tamit ay smoothie yoo xamante ne su la neexee mën nga si def meew su la neexee mën nga ci dolli ay yaourt mais yooyu beneen catégorie la boo xam ne bëgguñu ci ñëw parce que bëgguñu mélanger yu diis yi mélanger yoo xamante ni dafay xaw daf ñuy xaw a sonal ci période de bi donc li ñu def mooy dañu jël jus de fruits yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a léger pour ñëw andi euh, élément liquide bi nga xam ne moom moo ñuy permettre ñu mën a assimiler euh, mixage bi donc li ma njëkk def euh, ji li mooy dama njëkk def ananas donc peau ananas wala ananas frais yi nga xamante ne dañuy am dama bàyyi xoox yi c'est parce que xoox yi nga xamante ne dañ koy dañ koy sànni surtout xoolu xooxu xaax xooxu xaal yi nga xamante ne euh, dañ koy faral di am dañ ko war a lekk parce que xaal yi euh, suñ ko lekkee lekkaale xoox yi daf ñuy permettre quand même ñu am digestion bu facile ba tax na damay bàyyi xoox yi ci biir et puis jël euh, tuuti jus d'ananas def ko ci pour mën a faciliter mixage bi donc mi xaal ak ananas moom laa njëkk def et puis on donc mi ngoog technologie di dox xam nga ay dëbb ak ay nokkos yooyu yëpp ba bi ko ñëwee ba léegi dañ ko bàyyi donc mi nga am lu facile am lu neex loo xamante ni euh, bëri vitamine mi ngoog donc euh, anana ak pastèque nga am loo xamante ne dafay neex léegi li ma njëkk def mooy que dama jëloon xaal bi ak euh, ananas bi dugal ko ci frigo bi frigo bi ko euh, réfrigérateur bi ko yi nga xamante ne seen ay teneur dafa baax parce que soo dugalee sa ay fruits dafay garder toujours vitamine ak minéraux yi nga xam ne moom la fruits yi di laaj moo tax ñu taamu euh, réfrigérateur u béko yi donc loolu li mu lay permettre mooy nga mën a mixer te doo ci def ay glaçons parce que da ngay gën a dangay am quelque chose boo xamante ne dafay gën a léger donc c'est mieux ñu seddal fruits yi avant ñu koy mixer nga xamante ne yow soo koy soo koy lekk wala soo koy naan dangay am quelque chose de quelque de frais donc mi ñu génnee li nga xam ne moom moo ci des et puis defaraat beneen boo xamante ne cette fois si c'est beaucoup plus sucré xam nga banaan moom fu mu fu mu ñëw nga xamante ne suukar bi dafay ñëw parce que c'est riche en en, en glucose donc nga xamante ne dafa bokk ci fruits yoo xam ne dañu saf suukar ba pare donc moom dañ koy faciliter euh, dañuy faciliter euh, rebot bi mixage bi moo tax dañ koy découper toujours en petits donc deuxième bi banaan lay nekk def tuuti pomme et def euh, tuuti mango def tuuti orange donc xool lan la ñuy jox donc mi ngoog donc nii lay demee euh, dañuy jël euh, fruits yi nga xam ne moom lañ fi am def benn assemblage boo xamante ne nii lay amee en direct donc mi ngoog jël naa tuuti orange bi nga xam ne moom it dama dindi xollit bi mën nañ ci def li ci des dama koy denc parce que dama bëgg def orange mangue papaye donc mi ngoog et jël mango bi nga xamante ni ñoom it euh, nekk nañu ci saison wam fii moom mango euh, Sénégal la fekk baax donc mi ngoog ñu mixé et def tuuti liquide muy jus d'ananas bi ak tuuti pom donc mi donc benn benn banaana bu 100 benn pomme bu 200 benn mango bu 100 francs mën na la permettre nga am. Euh, benn euh, carafe boo xamante ni c'est très très riche en vitamines riche en fer riche en calcium nga xamante ni du jafewul benn yoon donc mi ngoog on mélange tout et di dolli ngoog bën bën bi suñu bëggee dolliwaat da ngay jël rek def mélangé ko nga xamante ne dañuy am quelque chose de donctueux kook et puis tëj mi ngoog donc cette fois bi dañ koy def ci carafe bi et puis denc denc ko ci réfrigérateur bi ba nga xamante ni dañuy ñëw ci moment bi ñuy déguster nga xam ne dañuy am quelque chose de très très frais donc Baye Cheikh euh, tey lii la ñu andi euh, defar defar euh, rotate vitamines yi faire le plein de minéraux yi nga xamante ni moom la ñu fruits ak légumes yi di indi donc li ci des dañ koy mixer remplir carafe bi remplir verre yi nga xamante ni moom la ñuy am pour mën a jàll ci dégustation privée bi ci kanam Baye Cheikh <coughs> <coughs> dans quelques minutes soo bëggee sax ni mu paree ni sa mandi ko ay fruits dafa baax quand même ah. surtout nga defaral ko sa bopp. Euh, tout ko sa bopp jàmbal ko sa bopp. surtout gën yi ñuy jaay souvent nga xam ne day bëri ay produits. ajoutés ah euh, ça naturel euh, ça fait quand même du bien. oui le matin quand même écoute. un bon verre de fruits. waaye bàyyi ma juróom ñaari pamplemousse rek nga am sa litre. ñaar fukki dërëmu banaana. waaw banaana benn 100 francs waxaale bu baax sax ñu jaay la fukki dërëm. nañu koy jaay jàllale ñu sax euh, bi. nga xamante ne. nekkuleen kër euh, jaraaf nii de. kilo bi xam ne 1000 francs la. nga jël benn banana bu 100 francs jël benn pomme. te jaraaf jaay la nga jël ko sotti ko yëpp ci ah. am nga xamante ne moom moom lañ la fekkee am nga machine lu béko bi 1000 francs nga naan lu frais lu bëri vitamine chaque matin. c'est ça voilà yaa koy mixer la neexee si si t'as pas tout nga jël banaana yow a patel jël sa kuddu. waaw bàyyi <laughs> bati ko bati bati bati bati def ci sa tuuti meew ak sa yu baax. après tu mets au frais euh, écoute euh, voilà da ngay am lu baax lu bari. waaw oh, je te jure mu ne poulet génn nga naan. <laughs> a bàyyi. <laughs>